soir, le 30 avril, Vive Cafeteria, de Daniel Otey Moellon, le protégé de Prison l'homme de sa génération, l'homme qui est en train de marquer sa génération, bonne Vidéo Yutoki, Borom Lum, Borom Mankaya Faya Khayari Kharam, Yedan, Vieloum et de marque, ils sont là, pour se mettre les free, Jikou, il est là, Authentique il est là, Rumzo il est là, What Brain, PD et moi, donc nous sommes là ce soir pour fêter le Big Birthday, le Birthday Show de l'année, jamais égalé à aucun autre Birthday, plus ou moins l'homme de sa génération. What bring the House, c'est est prêt sur scène, you let Yeah, yeah, I'm waxal kañ yuuxu bandi dëgg moo fi teew càkku besoo musul ci seen yàq tàkk ngeew képp fekk joxal leen sànni seeni melo musoo dégg président bu sàcc seeni vélo bandi dëgg di kaar faale ñëwoon nekk sa biir am nga bolo te nan nga raat maa nga teg sa biir maa da fokk yëngi suuf su duñ ma teree gow àgg naa ma taay lu bari te yow teere yaa ngi bi ngay déglu moom sax ma la faam jobu kaare naa xam nga maa ko 두번 모아만 막았단 다른 일이 일이 너와 저는 견해랭 저승경의 빛이 앞서 저는 견해랭 지금 어버서 떠고 잘 준비 잘 rek bandi original warul jéngu jéngu rek jarul wiiri wiiri ñëwal jooni jooni rek doo fi jamee gisi yaasa jooni jooni rek sikiroo ko sa kaw jëlal jindi jindi rek bandi original warul jokk ak jag rek bandi jëkk ragal jeel loo di ñëpp di xool boo di tax na ñu tudd dëgg waraat ñëpp di koos teew si dem bi lekkul desal booba ñëpp di xoos MC suma sunu ngaala nag ko sul sa boor jël di léegi kala sànq saaga suli sa mboot te jal sa fekk rek wàññi waxte yokku joob léegi rab di fay ma dinaa gën a yokk ci yoon. yaa ngi li dugg fi taxul man ma am sa jot. bu dee nga yëpp la tiim nga xamal man la MC Bot. gars yi fekkoon damay fekk léegi maa ngi mën a squat. ne leen jàmmi laay xandal ñu koy tawal ma sa squat. jàmmi laay xandal ñu koy tawal ma sa squat. guddi guddo bi ne di ji ratis ba cool sama maam daan na wax naan jalu muus bu ko mës a waxe sa yaa ko waxe rek di nga gis sama maam daan na wax naan jamono ji ñu jëm dina tàng dina

boy. I am for some of all of the old superman, my boy. Young y'all love how that you call it, young now, yo, go to the correct, correct. Y'all think for some of that, y'all think for some y'all think for some boy. sama maam daan na wax naan ku la jiitu ci néegu lëndëm moo mun a wax gan ci yow fu muy toog sama daan na wax naan bëri ko ci waat a teg loxo mu dee ñàkk teg loxo mu dee kon teg ci yow sa loxo mu delloo sa chance ngir ëllëg nga mën ci am nga ngir récompense ñu war a jikko yi defaraat bañ a tardé Dans le milieu, mais quand même que tu parles Y'a tellement que tu m'as tué, que comme mon conseil Mon Dieu, qu'on utilise correctis, nous oseille Moi, on est le milieu, mon manque à saigner def Mon souffre d'aide, n'a pas def, que son chef Nous l'avons tous de m'en commencer, je ne l'air Dit j'ai ta tech, tu t'as dit que nous l'air Moi, on est sa maman, mais il m'a Oh, y'a la rec, là, nous on est down Yo, sa maman, boy, y'a la que sa maman, y'a la que sa maman

tànn si ay jikko yu ñuy tànn jabar am nga diina man nga muur ñi musuloo ma soona le musul ñàkk di nga am beebi naa la soola ji maa la nangoo góor baay musuloo ma bañal góor nekk duñu ñaari xool li nga doon si man dafa foor ñëpp nangu nañu bébi yaa ma daana tax ma yegg suuf di la xaar topp ma la ndax taar mais te jikko bii te dafa raar كان الدنيا مدني فار كان عم نداو تن اللي قشار قل اه كان دوك كجانا جيري اجا اي يا اسوق اجا إيه، جير آه. جير جير فوق يا bani dañu bëgg bu sori sama kay ta doum na dama nega mo muri ya kore sama kay ne mo fay ta mo mo jota am sori sama nge mo mo kore ma negi adu sama tari ma negi wala ta bu bu tari ma negi sa bu ta bu tari ma negi my boy kana abulai kuma da kuma ne isa da kuma la hana ni ne kete kuma my awta ne kuma na bu bi fete amma kare na na bande da saranga na kuma ka kuma na kan tana yana ka kuma san ku jama kuma ba kare na sirri kamar da musu ya astige ko ni taranya ni subara Te yëg dama kat te jóg ci sandis borom doole xamul naa ko te des yi ëpp na deux cent dix joobu dem ba tey soog a ñëw benn fekk ni nga duma tere jàpp ma kii gis na say kaanam moo tax mu teel a tëj xalifa tànn kon ginnaaw yow sa di pam wala ñu ko ci biir tarixa yi ñii bàyyi ñes ñu ci maamu ñee maam Maodo ñii ñàkk maalu ñee Bamba ñii bukkante ñii di Christ ñii di buukante ñii di buukante sa bopp naan sa yu góor la mbëkk yan la góor maa ñëw ma wante maay lente booy yi maay fas tigay bi doon seen góor papa ñëw na ëtt naa rek papa ñëw na ëtt naa rek papa ñëw na ëtt naa rek sëñ bi jëlal sa waay ko toog papa ñëw na ëtt naa rek papa ñëw na ëtt naa rek papa ñëw na ëtt naa rek sëñ bi jëlal sa waay ko toog papa ñëw na ëtt naa rek papa ñëw na ëtt naa rek papa ñëw na ëtt naa rek sëñ bi jëlal sa waay ko toog bu tax tax bu ñu maa ngi bali dégg

general numbers suuliñ new ma dama sama yey ba feeñu jox ma big gun i suuliñ ñe may natt yaakaar doo àgg Dakar comme pat da joolaa gën a mi si rappeur yëpp samay boole ca bëgg naa jóg i am deux mille dix ku ne xam ne duma xale dëgg dama i am dama jom dam xale bala rek pour dam xale loolu laay bala dama nekk wala suma xale toppal fële wala loo rap dëgg tele dëgg tey big fu mu fële waaroo fële dama du kii wa kële ah hmm. big

boy put us to D. Yo, Doc, who brought these boys? I get it, who I God won't let it D. That's what we're doing, but Doc, what I'm saying, all you say is D. But then the time we put us bad, now I'm feeling good. Then be and pay, I will buy here, through the cool. Look at your woman, don't. But then that guy, Palma, good, got Jerry, good, man. Who them mom, like, I believe they do. Respect your man, I bet you ready, that's your guy. Flowing out, we a mad, that was up for guy. And you know, my neck to fuck. Let me do that, I love my body, got God if you gonna you take with your body. Yeah, everything with your body. nigga. contradiction avec arrogance. maman même su ma yii rek naan Saloum il est élégant c'est rapport du maman naa ko nopp si si seen kaw. et tant que maa ngi rab ñun ñëpp di ngeen lambale. fekke xool ci des jaaxal boobu seen i jàmbat mais man pour le même bal. jëmale ko amul jàppale fa kii di jaawale. tali gaaw a kii ma kii di mel. parce que. na ñëpp déglu lii mel.

fake di glory sa ay bopp nañ moom ci nag ni nga jobi nag sooy yu mag yi job ni nga weer naa sëy xut yow yaa sëy l'absolu xut yow Manapsu, Jesu Mane, Julio Mungele Manapsu, Likupio, Dokulu Bena Sei, Julio, Yasei Napsuli, Julio, Julio, Jesu Mane, Julio Mungele Manapsu, Likupio, Julio, Pokal Pogalai Pole, Postole Koi Gedek Pole, Postole Pole Gudu, Pole Pole Pole Pole Pole, Jesu Chukiri Gini Nisam Julio Kine Usa, Serhat Bidak Frank Engel Me Pulu Tusa, Hip Hop Lekena Bipa Bilu Tukuche Papa Jabari Pipa Ripi Pari Pi Enemy yow ñu jóg ci bërëb bi bëgg mu toog jëkkërëb bi te la for bi microphone la rap bi bande ay def lu tuub rek ñoo ko étouffé ci seen kër rap bi dafa dee depuis rappeur yi tàmbale waat ku jóg rek tàmbale saab waroon am pelu gi dàq avance rap de maître et si bi dafa doon ngeen di gën ko baax te gën a askan di bëgg di wax lu méngoo am ak léegi dañuy xëccoo buut xëccoo naat sukkante suñu bind ngeen bu pennaat old school dolaale ak new fi am na amul si amul fu muy jëm aw sa topp dëkk red light thing, Julio. Yes, they like to live, Julio. To my name, Julio, oh, yeah, man, I love to live, Julio. Julio. When I say Julio, yes, they like to live, Julio. Julio. To my name, Julio, oh, yeah, man, I love to live, Julio. This is your DJ Levana, CBI motherfucker, and I represent, rock y'all on wood, Pushing a nigga car wood. Eller Nigeria Maika pata kredi rap Wanatakatia watakatia watarapshaka Nipeni kura Nini utendeka Weteko yanga das Kopi jamla dedika Bega kipu japuka Real thanks when the step on, let my fuck fuck, bigger shit, fuck the people dick, let my chuck chuck, she don't pronounce lick to up Let my chuck fuck, get her puck, like her jump, like her cock, sing it duck, send me let it chuck, a chica, oopie, let it chuck, never gonna know one. Killer, killer, pack, killer, killer, killer, pack. Killer, killer, pack, gotta get your head up back. Sometimes i stop looking back. Never gonna pop, say I'm gonna know. Birthday show, birthday show, birthday show, birthday show, birthday show, birthday show. Up in here, dig a plan. You might have petrol. Nen, Karelen, Dekulen, paas moom maay ma toogal waan ngeen xam ni moos pamu leer man dama rampe aksi wuri ndam yi kenn du ko andi fekki wes mu ñeme na aksi lépp ma dama ñëw pour aksi du ma ko jëf kenn rek taxi sama tuur dina foog ne bu taxi ba bañ a def doom mu faxi li ngay uti am naa ko taxi ah bëgg suuf dafa la def lu bon mais sa morom di ko wax a bon bu la taxee fàtte nit bi nga doon te soo bu baax a dem ni tàjja ko da nga cee ba noppi di wër lu yomb ku déglu sa bëm xam ne jëru xoo bëgg ba économique si nekk ki fi mën a bëgg door yow fuy fane li mu door la de soog wala ñàkk joor amul passion dafa jiital koom Abdou Moussa deet yow dangay soor yow suit wane li ñu door fi muy duñu sëgg dëgg ne ko sëgg sëgg taxul ndox bàyyi yoon foog ma wane lu sari sa rabu nooya nooy bi xëpp si acide bu dëgg bi fëgg la acide bu laaj li ma indi sa kar ya ci mbalit yi génn gis da ngeen a salit yow wane lu rafet ba laaj ñu lay si nga du tax ma pas samay xarit kari yëngu tuuti la ba mu dagga tar xiis gaynde fàtt lekk li du del kër ci nu ci man ko lala te ko nekk ci ni lo laaj ma tollu ana wal a sala det ne ko down fi sunu jot fa la sala wutni am fuga tu wintu du doon ni la yabi bi jamu de ci ni ha bind ay avati talu di ka ko seral seet te ni bi wasi bonam ba di talu seet si seral seet ma demay tax nga falu fire men du tëral fee bañ bañ du tee nga nangu bis ni nga di jël sa bëgg yow tax bi yu ma ma dégg sa sa dëgg dëgg li man duul wali kër ak i bërsëm mun da rëy ba mën a gondi yu ne a nako noo ñun réeruñu xam nañu fu ñu bëgg foog yu ma yow ci benn toog neex lee fu ñu darajee na la foog yu lu ñu am ci rab bi ne ko respect di ko gënal wax ci du neex si sa da dee rab di مسلم أتيج يا قزز الجميل أسلم تيجان مريض خاطر الله ينسل نبوي بروت فاي مالا نترغل سيك تاني مالا نترغل لن لا جمع كجم ليك كوان بين يندي مجرد أمسي تلين أفريقنا ليك يوم دوب يسس لنيك واني يا رعب لجيك لو أي فورا علي بيك بيش نبوي مخني مؤس من المتعلم رفايا لدالتو كنت تنمسك نام دنيا مجا أجا في رفي بحريقة مجا I'm like, yo, ¿qué pasa? Nada más que fuck, ya que estoy ustedes Fuck you, they can't look Şimdi yaptığına tek asıl Kamdayın lobi yılı fazla bir yere Sürpüm gibi sor Fasa bagi o yok değil for La bunun bir neyi dinli tam Kuyu kemara bu zinga Pasa sabır bir bir we bega Kam yolak gana yok hiç Makabıda piyasa muzina bu dik al khar Vakinu nerede yanına khar Mutlum esyek Yeah DJ DJ What's up? Where you from?

I'm Pode tocar só no grito É I'm razaca, bro Papo pra a Gary James Louco, papo pra Stalin, Gary Jones Tá muito morra, te saca, te toca a sem novo, é Tu já I'm no

kwani, kikolo kuikwani, kikolo kuikwani, kikolo kuikwani, kikolo kuikwani, kikolo kuikwani, loco. Ice cream, ice, yeah. Yo, yàgg jël biñ ma ko jox, c'est pourtant man tooñu ma kenn. Fekkat yu màgget bay lox, fu ñu toog seen taat yi di seey. Hey, lan nga bëgg ma lay maral, boo ko yaakaaree.

Everybody, put this away.

Listen, I'm going to go on like that. I'm going to go on somebody pretty come ba la ko daal bu mu bëri come na ñu topp ni ñu xool li may gis mooy gën sama xool balu ma sama tool ma toll ma ko jox bu si kenn nag kenn ma ruum si ne dañ na ko jël bu ma ñoom bu ma mën bu ma bel bu ma mën bu ma mën bi si kenn wax na ko dama teel te bu samay bëgg bëgg dama xool sama laaj yàlla moo ne bu toog sama lu ñu yàlla lu ñu foog benn dàgg sama gaale bu ma gënal parce que seeg sama gaale xanaa xamu si tabu kenn ñu ko ñëwee waay Number dégg Iblis sabal ñuy daw ndax xam na ne bokku ñu jàmbale ba nga xam ne man kay dama xam ne yow na nga xamay lépp lu ma def day man yow su nekkoon te ne ngay gën a matadi da nga tàng

of contact, you. You gotta give me once a time That's a bad bag, but you are making me know you know I'm bad Nothing wrong with getting you fucked when everything you pop around You know you know you dog, can you leave? I'm a lie Yo, girl, I'm the real

有。 te démb ñoom ñoo tollee tey moo dee rapport yoon xool bu bon awu ji mbay ngay fay man maa ni dëgg laa si seen i livre jox ngay fay xam nga solo di baax du dañ ko dégg naaw original royal naa kaam jégg naaw amee ni nekk ñoom a gëm ni ñoo ni seen ginnaaw la ma jot di boobu taam bi yëpp si ginnaaw highway now highway now Kapag lang sa dogi jepo fi Taranta abil da federu ya Birthday show Ayaga nesi wajar wonga nanko Birthday show Prezi mun na rabo jola amna kasumay Isa rapa di jalay Fowe di lako may Naglang di sundu bul masakalan mabayra Kani basi batin do mu ana mazayra Yaga nesi katulu hoa ite bezayra Nikese rapa kukotu madem pasakira Orengi alu fay hapita sanu kahatemel Looking I'm you We niggas crazy we show. you who let me they wanna holler. Why you're not and not taking the mic, but you're through like you're big dollar. I'm gonna rock I'm gonna drop them, I'm gonna talk, I'm gonna be Put a little shit, put a little no, put a little hump, bang, bang, bang, cicada. Better than my bed, I think I'm going I'm gonna rock them, I'm going I'm gonna put it we get some now, niggas, I'm gonna put it down, put it on the high, nigga, man, do what I'm come to the time, we just need to have my gunda. Like I said, do what I'm what I'm Jackie, Jackie, Jackie, love, mama, daddy, like the Jackie, love, the whole Jackie, Jackie, Jackie, love, mama, the Jackie, Jackie, Jackie, love, Jackie, microphone, me, I can love, love, big game, and I'm my dealer, you it, it, take am kàññi ba bàq ngay asimel beeg de ku fi dugg daa kon nag sama dugg daa ah kon yow ndeke da saa li nga gën a dee ndax dama may droit droit théorie bi yow la pratique man dama mën rap yow da nga classique sama flow daal la comme drogue ak moo jafe ngay gis ko ko trafic I see how many rappers related all of them as rappers. They can never check them my way, even if I got so much purpose. What you know about rockers? They are worse than hackers. I will never ever believe in you, so let me leave with my brother. All my people, let's roll, flow around the world, let's go. Yo, now I'm on the front row. Let them talk, they don't know. Never this shit, never this shit, never this shit through nobody. Shit back. Look at daddy how he hit on the mind. yéen ñëpp a ak man fe yéen ñëpp yéen ñëpp ak man fe yéen ñëpp ak man fe yéen ñëpp yéen ñëpp ak man fe yéen ñëpp ak man fe yéen ñëpp yéen ñëpp ak man fe yéen ñëpp ak man fe yéen ñëpp yéen ñëpp ak man fe taxuma la te lu leen gën a xam musique kon foog seeni pic am naa Messi am naa Chris am naa Neymar yow foog seeni pic yow flow trèfle di ma ñëw di jaan maa ceele ku nekk sama artiste coup de feu coup de foule coup de tête Zinedine Zidane fédéral bi way ngay jaay bandi yi dina law ah yàq fu la wut dina law président ak ak yéen a xam baax ma ma loog fuutoo aayoo dina law sama gom sama koñ sama koñ ma kon duma saboy siisu te na màgge siisu parce que seen yaakaar laa tas ko fiisu yàqtar laa yes yàqtar laa yes li nga mel rek laa mel ku yàq der yaa yes ku yàq der yaa yes deewal sa bàmmeel sax fajar laa yeew sax fajar laa yeew joor bi oote nga xoobi si joor di si def lu yéeme kon fokk ñu yàq laa benn xaalis duma mu saxaar leen si kenn te kenn si yéen maa yem yow ngay jigéen leen na ma leen na la tee leen na yàlla kii amul kenn ku ma mën a déy si yéen acca lay na la leen doo si ku ma mos a soru def naa góor jigéen forcé may na gën si jigéen nag jigéen ñi pexe bu ñu mën day liggéey yéen ñëpp ak man rek yéen ñëpp yéen ñëpp ak man rek yéen ñëpp ak man rek yéen ñëpp yéen ñëpp ak man rek yéen ñëpp ak man rek yéen ñëpp yéen ñëpp ak man rek yéen ñëpp ak man rek yéen ñëpp yéen ñëpp ak man rek What a glorious! Son excellence! Son excellence, Adam. Son excellence, Adam. Son excellence, Adam. Son excellence, Adam. Son excellence, Adam. Yeah. Adam. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Sangay mankata faya haya gal kharab Vlerim vlerim Sangay mankata faya haya gal kharab Vlerim vlerim Ha goy, ne goy, ne goy So goy, tere dir Woman can't decide to get bit with a flat Man yak and nago they see big with a flat rap but full money cap But I broke with blood crossing you with a dance Get bad days off of My own done and from Greek and last That's what it is now with a piece of a top of that They don't feel that I'm bad Just do it, they generate Maybe go for certain, I'm like it and I'm flat Projection I keep them So next to last I keep them But I don't be like that I keep them So man the young do I see them Who blah boy front I keep them Love them to the devil Better the devil Throw the new door And what we rockin' check round I ain't gonna fuck Yes, yes لكن تنها بدأ بعد كراتي بعد كراتي وربو hollow Make a lot of fucking money so damn so crazy busy not easy noisy comme ça so trouble évolution si brique si rap si gas parce que ngeen foog nii foofu la the mënuloo rap amuloo flow amuloo jack kon yow koo mën a yeen maa ngi nga the society and tell the right looy toog ci di saaga respectel people bi la seetaan teg la ay fii kenn du fi ngaa ko bu defati paas ku nga di gaaf ay gaaf xoolal ends bi Let us say, yo, rapport du dof du dof document pour indice exemple la war a mën a prendre ku ko liggéey papier collé taxale biri collé critiqué dirigé collé rapportu Facebook commenté cliqué aimé ñu bëri wax ñebe ji ñaar ñebe di kese acca la ko daal public bi xëpp si xëy na coow li wàccaat comme si nga bien ñu bantuwaat nan ko leen ñi di ko répété di ko répété di Continuation, continuation. Well, the man got the mic, but when you're gone, the ice on. Nigerian music, no one ever gone the icon. Things out them can do that. The news when you feel like it, then you never the icon. Well, the brothers, as the money boy. bro, the brilliant, I bro. Fire. Fire. Fire. Fire.

We're the job. Synagogue when we with the sackers, that do with the feather. Y'all put at the giant drop, that do with the feather. In the blind, they got with blood, that do with the feather. Reverend Mama Spike, I think I'm selling thousand dollars for my Oscar. We want some Oscar. We some Oscar. Yeah, I'm a spot, some Brockon. Everybody, we want some Oscar who knows some Oscar. Everybody who knows some Oscar. Yeah, no fat, so um. Indépendance ou Sénégal, c'est la même yam Président bu fi yam dem ak Senghor Diouf Wade yam kan si xale la nga may waaye si Macky lay de cinquante ans complexe avec le papa et Lumumba Mandela Thomas Sankara suñu njiitu réew yi tey yee gën a sanglant boo xamoon lu ñu dund ak i waajur yi daj ñi mu jee dee si hôpital

di ngeen ma dama bir bi sama gars di leen ziar yéen ñëpp di leen wax Sow Log di leen wax respect wala boog parce que lii dafa nekk quoi nit bu woote yéen ñëpp ngeen ñëw bàyyi seen yitte ngeen ñëw teew agal loo for you all am na benn soo bu war a eggale nii mais moo dagg bir bi parce que invité yi président moo yaatu rek quoi 27 artistes la invité té ku nek di nga jey intro ak son té lool non xam nga bëgg ñëpp bëgg play lo ma tax ñu def lool non té artistes ñu waron comprendre am ñam dañuy ñëw jey ay 300 et cetera mais do wax dara nga baaru jallo quoi di leen wax respect respect sen bi té ngeen baay ba ñëw teef yëpp ak lo fo yu yeen ñëpp respect Salut tout le monde, Mais bonjour président Gallo. Mais bonjour président Gallo, et ça on est. Non, attends, c'est chaud. Non, t'es le premier mai. Attends. Je dis premier mai, pareil. Le titre de l'année Underground, là, il succès. Alors. L'enfant, l'homme de tous les temps, Diffuse sur scène. Didier. Be free. See les frères sur scène. That's what's up, song guy. Yes. a down, Cheers. bëgg naa dem bëgg naa gis bëgg naa dem nga fopp maa def sa ngeem yéen naqar ak tiis yaatal ndax ci man la bokk maa di fexetal ñi ma gën te topp maa gën a leeral bi ma jëm ndax topp naa dëgg gi ci dëggu ñuy bëgg seen digg dama ci bañ a dëgg ndax ndax topp nga bëgg naa laaj ji nga dige sa ndax bëgg yàpp rek jar na lekk baab xol bu dëggee ci baxkan jàkkoon it fop nel am na dégg naa kenn du ma guux ci ay foo ko maa naa rab won la fam nga fekk ndam teg leen ci kaw peace love harmony sama slogan mooy que naa fii ah. ci la ko mooy jaamu rek naa. salaama jaamu ngeen am. raxe yàlla kana. jaamu rek naa. jiyee jiyee. la ko mooy jaamu rek naa. bëgg naa seen ba ñëw wàccaat day doon damay la yee da lay won da lay dërëm mu lew te doon luy am takk tey so ne ak loolu caravane bi lay sëlëm bëgg naa fu ma gàddu may bala may jox nga d'accord ne lii lu wóor la teg wala am flow par mon forme punch lay ndax lu diis ci góor la jeeg fi takk bet balaa ñu lay xool nga fay mooy ñàkk jóg bet ñu sóor la teg ah. defoo li war yokku bomb yow pétal daru sax wax si xeetu dóor la rek dinaa rob ba nga jóobi ne ne day jéemee man daa ma joom yow nga xoome dama foog nga doolit yëpp ko coow bi di nga wom mi noonu léegi léegi maam jooni jooni te du ngaa yëg borom xol yu fooni dama leen nga naam bu ma sànni xeer dama lay sànni fleur mais day àndal ko lay dëna oh yeah suñu suñu ko am day ànd ak xol bi naam jii wala jii suñu suñu ko am mooy jàmm rek naam jii jii suñu suñu ko am mooy jàmm rek naam That's what's up, nigga. Hey, yeah. hey, brother, show. Yes. Presidential. Ah, yes. That's what's up, man. Uh -huh. Check yeah. it. What's up? Ajay. But I'm gonna what? Yeah. What? But I sing out, I'm so I want you to go through this hotline trained by the elder. Yeah. Never expect help, except this I'm on on I'm more trying to go the journey. So every time I touch, see black in my eyes like after I bust them mind, I'm free on the mic. To put the scratch like platinum, am Just so out, so we all go out and really know I'm in the boss. So, rappers and I wanna grill. Life is this spicy, taste a beat like a Tony Chef. I've got some camera to move. Forward to this game, put uh. on only play the gangsta here. Now I've got some coolest fam, I wanna fam, I just rock, rock, and I wanna. Man, but I'm gonna say that he rock my day, gonna be with Kirk, the man, so understand. I'm not one of this material killer. Everyone I see, wake up, I need a real killer. Huh? Yes, sir. Yes, sir. Let's do my good Assalamu again, them nigga. Yeah. They'll tell this motherfucker smack ass. I'm watching us, show the world I'm watching us. I'm watching us. I'm a hot fighter, Carter, empty, not by Carter. My style run uh. Carter, get a job by Carter. I know about the bullet, me, I'm supposed to be a des bêtises. waaw yoo xam ne. ah yéenay doomu yéenay yi dékku leen seen tuuma yi yaay doomu yaay ñëwma bi dékkul sa tuuma bi bi mu muy day fekk li si seen. bi fi jar di peeku tey demal toog sa peeku ndey keroog da ngaa rëcc sa taar day te peeku tey mais itam yàgg def lu diis tam tey kenn du ko baal. li mu du ko baal ha. ñi doon laaj tax dañu tas ne leen kuru la woon du sëy anda kaw lañ ko doore woon moo leen laaj ok gars yi warloo maa ñi ngi bëggee ñëpp bu kenn taxawoon bu sax nii laay def parce que ñun lii boobu rek moo ñu koy jaral fu ñu woo ñu dem wuyu ko te kii organisé yi ñu dañu am loof ci moom parce que dañu woote mu ñu fekk si fu nekk dafa am temps mi ngi mi ngi avancé mi ngi dem bu baax a baax te ñun ñu ngi ci teg suñu bët na gars yi jàpp hip hop moom it leen rek la leen la war a jàpp seen bopp yi quoi mooy hip hop dëgg la quoi dëgg la man mënu ma gëm ngay jóge fii ci poto poto yi di génn ci ghetto bi ba pare di représenter loo xamante ne dëgg hip fen is the truth da ngay représenter ñi di gis ay nit yoo xamante ne bu ñu añee ñu reer yow war a représenter parce que tu es la voix des sans voix mais mënoo ñëw di yeewoo ci ghetto bi dëkk ak ay ñoom dañuy sonn ngay imposer ay oto yu

donc t'es rap underground il fait refléter carrément les ñu ne dund yéen il a parfaitement raison. le rappeur doit être le porte-parole du peuple. encore une fois pour t'es rap yi ko xamoon nañ xam bis ni il a donné il a donné une leçon de morale très importante franchement. donc gars nous lu ngeen ko bàyyi xel tu vois donc t'es bon depuis Le underground gars il est koy def te ñu bëri xamuñu signification bi underground moi, c'est ça hip hop bu dëgër bi sound classique donc là da ngay wax tey problème bi am si cadre social bi tu vois donc tey dafa wara a feeñ say texte il a parfaitement raison ñeu génn ce clip donc auto bu nice so paré nga dem ñaari 250 nga duggee may nga seewte franchement donc li ñuy gaay gars yi ci la nga xamante ne tey quoi on va enchaîner avec Babs le Pro. Il y a Babs Pro et un autre Babs le Pro. Sur scène, nous retrouvons Kadla.

pro. Man, pops and get me pro. Man, pops and get the pro. Say pops to the pro. Say pops to the pro. Oh, pro, bigger. Oh, bigger, yup, to be big. To be this, to be the bigger, yup, to be the big. Pro, bigger. Pro, bigger, yup, to be big. To be this, to be the bigger, yup, to be the big. Time to show. Time to show. You remember the deli kiss. Come on. Say my ass deli kiss, my kiss, kissing deli kiss. Say my ass deli kiss, my ass kissing deli kiss. My ass deli kiss, my ass kissing kiss. Say my ass kiss, my ass kiss. Say my ass deli kiss, my ass kissing kiss. Say my ass deli kiss, my kiss. People humanité de Dieu. niggas here, I'm not guilty, I going to die. Bro, baby, we with you to bread, you're gonna die. And you look up alone, my girl, never be high. And if you man, you mother, sick grand, my gonna die. Who's it that gonna get it, fuck who they will never pop. Na podjenia me pali, pali, luta, tu fika. You don't be talking to me, you're just a guy. So much girl, so much your mug, woo. Играть пацанът е кандидат за население. Е дикат, дикат, да, дикат, дикат. Прави потраса, да, да, ми фразя, да, и така. Трябва да ми чати кива, бобо нюка. Айде сега чай за нега. Оле, ченга, я ми мати кви. Я бе, бе, бе, бе, бе. Yo, how, go, my nigga niggas to the game on niggas Who the thing in your device is You bang, bang, bang, bang, bang You hard, come on my nigga

ziar ñëpp ah président yi la from yaraax quoi xam nga organisé woon fii bés de show xam nga yaraax waa yaraax ñëpp ñëw cat ba cat waa cikki ñëpp ñëw cat ba cat waa chat, ñëpp ñëw cat ba cat de passage di leen sowloof ñoom ñëpp quoi. léegi gis nañ bii mooy sa ñaata édition ci bés de show bi. bii mooy deuxième édition bi. deuxième édition bi préparation naka la demee. waaw xam nga rek boo bëggee def lu métti quoi boo bëggee def lu nice quoi foog mu métti quoi parce que préparation bi staff bi xam nga kër di kat li jënd business yëpp ci groupe yarax yi donc est-ce que mën nga ñu expliquer seen entente entre rap yi nekk fii fii nii mën nga ñu expliquer naka la demee. waaw yarax léegi jamono ji léegi je ku nekk sa own business quoi mais. ku nekk sa own business teewul tamit ku nekk yaa ngi job sa propre job quoi te seex nañ jàmm ak salaam quoi parce que bés bi doxay doxay wane quoi bëri na ay gars yi doon wax coow fi coow mais boo xoolee rappeurs yi yëpp tey teew nañ fi ñoom ñëpp ñu bokk benn chaîne quoi lépp nice. ok donc suñu laajo ban bilan ngay tiré gis nañ la si préparation bi demoon nga ci fii Vibe Radio pour affaire buzz des show bi. Mhm. ba tey jii donc man bilan ngay tiré. waaw li may tiré si Birame vibe rajo boobu sax à la fin dañ ko mujjee annulé quoi mais defoon nañ yeneen émission comme Rewmi FM Top FM xam nga waroon def Sénégal FM tamit ñu bàyyi ko parce que problème de temps la amoon waroon dem Mbour def tour rajo yëpp quoi ça c'était nice quoi parce que boo xoolee ñaari rajo yooyu rek ñu def jot na def promo buzz des bi quoi te di sant yàlla bu baax quoi. au-delà de buzz des show bi donc ci lan nga projeté leneen. président bi yow gars xaar ko bu baax a baax a baax a baax si game bi gaal seen woowaa. parce que maa ngi pare mixé bu doop avec des features yi nga xamante ne su ma waxoon tur léegi gars yi naw mais du ñu wax dara quoi dañu bàyyi si biir lépp dina leer incha allah bu xasee ba génn dina éclater Galsen. waaw si ban projet la nekk instant bi. maa ngi sama projet mixé ak clip officiel bi waaj a génn incha allah yaakatul avant élection yi. sinon donc ñu waaw di remercier anti yi bu baax a baax a baax di la remercier parce que lii naaj na quoi c'est pas facile te gis nañ tamit activités yi ngeen di dox si biir yaraax quoi li ngeen jàpp si business yi yoon yëpp tout ça xam nga pour jéem a jëmale yaraax kanam quoi di leen wax one love respect quoi. di bëgg samay saaf cat ba cat gars yi taxaw fii yëpp ak gars yi ñëw teew ñi ma souhaité happy birthday ñi ma bëggoon souhaité souhaité wuñ ko xam nga cat ba cat quoi one love à everybody saafi saafi tiggi.